asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yonent bi tey nag dañoo amaat daje bu mag boobu boobule daje boobu nga xamante ne nii ñu ngi ko defee ci seen bu baax boobu nga xamante ne nii moom lañ tuddee lu nu bokk lu nu bokk nag ni naa la di seen boo xamante ne nii ku ci nekk dana bëgg nga gis sa bopp yaa xam loo mën a doon yaa xam foo mën a bokk waaye tey ñoomaat gan xale boo xamante ni nii fi la juddoo fi la yaroo fi baax waaye fi ko baax fekk ñu gën koo xam ci Alioune Badara Kébé di jàmbaar ca waar wa non seulement am lu mu bëgg dinañ ci ñëw léegi léegi waaye tey li ñu boole mooy autour du Barada émission nga xamante ni nii ndaanaan wu bu ne jaar na ci réew mi waaye <laughs> commandal un faute délégation waa gi faal am xale boo xamante ni nii mën na ne woy nee na ma caam ma ne ko naam mi ne ma kii nga xamante ne mooy Alioune Badara Kebe maa koy dugal ah kon petit coppet ngir ko faal fais attention ngeen dugal Alioune Badara Kebe ñu war a toog nag waxtaan ak moom ci ay pàcc ci mbiru Grand Yoff taxawaayu Grand Yoff taxawaayu réew mi wax dëgg yàlla mu am njàngat am loo xamante ne ni bëgg na ko def ci réew mi tey kooku na ñu daloo muy Alioune Badara Kebe fàllaloo teg. kaata fayu kaata fayu kaata fayu. ku la masa kaata yet nga ko mbirig kaata fayu badara bilaay kaata fayu kaata fayu kaata ku ko masa kaata yet na la birig kaata fayu badara caa kaata fayu kaata fayu ku ko mas a kaata yenn la biir bu saf béton Alioune Badara dama ne xam ngeen ku ñu woo Kébé Mballo la ñu woo loxo yi nga ni xanaa Badara neexul yéenam xanaa Badara neexul yéenam ngor dama ne daa am jom daa mën a fay bor daa ne xale bal e Badara Kebe li mu def Grand Yoff kenn e ci gox bi kenn amul fayam dama ne nawetaan bi ay seen mu def ci dara et mbënd mi jóg ndox mi sonal ñu mu def ci dara et daara yi taalibe ak xale yi mu def ci dara et yi artistes yi mbër yi mu def ci dara et Kebe li mu def ci Grand Yoff kenn amul fayam dama ne doo xëccoo junni doo xëccoo alal doo xëccoo tabax doo xëccoo alal doo xëccoo tabax eh sa ba muy tabax booba tabax xewul atut Blaise Diagne fekkoon na muy tabax sa ba muy tabax booba tabax xewul atut Blaise Diagne fekkoon na muy kaata fayu kaata fayu kaata fayu ku la a kaata yéen nga ko birig kaata fayu ah ah bon jàmm foog fa mbawoon foog ma mbëtu ñoo ngeen li ñuy fay nay mooy bañ a juum musiba naaru laay kii a gëm ñaanu ñeme ndakaaru njaay musuloo xam li bañuloo njëndu waaye doo daanu waay aka ngaa ci gaay yaay seen musiba naaru laay ki jaga ki jaas ah tatam rabbi bin bin caama loolu laa laa ilaaha illallaah mbokk yi yéen ko way wu ne dégg naa ko bakk bu ne dégg naa ko ndax ab géwal laa kenn mënu maa ndax ci bàkk waaye tey day dégg naa loo xamante ni nii wax dëgg yàlla ah bees na tàq sama nopp nee naa leen leader politique bu ne jaar na fi waaye gi ngeen li ma dégg <laughs> kaata fayu kaata fayu la ko yaakaar ne ca la mi ne ma déedéet kaata fayu kaata fayu kaata fayu ku ko mos kaata ma yaakaar na yat la lay dóor wala mu dóor la korpañ nee na Alioune Badara Kébé dóor na la birig kooku nag ñu dalal mooy xale bi toog ñu gën ko xam ci Alioune Badara Kébé Alioune Badara Kébé maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp kenn ku si nekk si turam ak santam gannaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi sant suñu ay waajur sant kilifa diine kilifa aada yëpp di gërëm di sant suñu waajur yi di gërëm di sant. Euh, sama mbokk yi ma àndal sama xarit yi sama am di jàmm yi waa pro famille waa mouvement lu ñu bokk ak am di jàmm yi di la nuyu yow Thiamas di nuyu sa équipe franchement di kontaan ak mbégte euh, ngeen gunge nu tey tout la journée maanaam ci suba ba léegi yéen a ñun vraiment contentement ak fierté gis nañ professionnalisme di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek yàlla na doon njëriñu Grand Yoff merci waye tay dañu bëgg waxtaan nama ko son baye waxe ñu pello tello bu ñu paré dello ñi ni dello mo ñi nga xamanteni ni askanu Sénégal waaye rawatina ñi nga xamanteni ni yewo yeewoo zone 7B mbokk yi xalé bi tok ni na la def na fi jaloro yo xamanteni ni ku ci ne war nga ko mëna baye xel banqal sa baram bu ne mën nga wañi bu def bu déggé footballeur xalé bi boo déggee social wala cas social xale baa ngi nii toog waaye tey nee na ma caam ma ne ko naa mi ne ma loolu yëpp donte ko mi ngi ci man waaye dafa am leneen loo xamante ni dama ko cee bëgg a boole. ma ne ko muy lan muy bâtiment bii nga xamante ni dañ ko siin sunu ginnaaw eh, cam ay bâtiment bii ay bâtiment bii ay bâtiment bii moo waral coow li coow li coow li bâtiment bii waaye nag mbokk yi. ñoo am ay leader politique yoo xamante ni wax dëgg yàlla ah ci Grand Yoff la nu bokk ñëw ci lii nga xamante ni chaîne bi nga xamante ni mooy lu nu bokk kon tey lu nu bokk doon ko mën a waxtaane tey li nu bokk war nañ ko jël ku ci nekk gis sa bopp Aline Badara Kébé ginnaaw bëgg a nuyoo fajar teel nga woote woo asanu Grand Yoff gi yëpp ñu dajaloo toog waxtaan def caravane ba benn heure bi ku ci nekk dem ñibbi si kër guddi gi ñu ñëwaat ci autour du Barada tey ci bis bi rek boo ma ko doon résumé tey lan nga yëg. waaw Thiamas bés bi tey boo ma koy résumé mooy euh, waa Grand Yoff sasati nañ ma. waa Grand Yoff. waa Grand sasati nañ ma parce que tey euh, nit ñi am nañ ci ñun yaakaar yaakaar googu ñu am ci ñun nag ba di ñu gunge euh, yàlla bu yàlla tas yaakaar googu ndax tey doom moom lii rek lay jëriñ nit bu jud doom bu juddoo. képp ku am njaboot da ngay ñaan yàlla mu juddu euh, wuutu la donc defe naa ni Grand Yoff ñun ñëpp ñoo ko bokk di fi ay doom donc lii rek la waa Grand Yoff di xaar si ñun mooy ñu bokk ci développement bi mooy bu ëllëgee ñu bokk ci ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñun ñooy yëkkati Grand Yoff ba waa Grand Yoff gis si seen bopp. d'accord Alioune Badara Kébé dañuy dégg nga naan développement développement développement. Hmm. te du na gis ne Alioune Badara Kébé ci football nañ ko xamee woon. Hmm. mu jekk ba si yàgg bàyyi football bi loolu moo waral loolu. waaw maanaam football bi sax développement la ndaxte tey jii man fii laa débuté sama carrière sportive euh, mais bi ma demee bitim réew mun naa ni lépp lu ma fa am euh, Sénégal laa ko indi rawatina Grand Yoff donc tey. Euh, ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo génn yàlla def nu fii maa fi njëkk nekk professionnel HLM Grand Yoff bi waaye li ma njëkk def mooy ubbi centre de formation bo xamanteni 2008 la ko ubbi 2011 la la ñu am ay internat mu nekk club de 2011 à maintenant defe naa wax dëgg yalla fukki at la nga dëkkal ay xalé loger nourri blanche yi kenn fayul dara nga leen di yobbu Europe ñuy football di signer ay contrat ñoñu tay amna ñi nga xamanteni ñi ngi jouer équipe nationale A au Sénégal defe naa ne développement la donc comme ñëpp footballuñu ñepp tamit duñu ay sportif motax tay ñu dugg ci yenen cadre yi moo tax ñu dugg dans le cadre social dans le cadre de l'éducation njàngu xale yi moo tax ñu dugg ci assainissement bi euh, mooy mbënd mi mooy euh, en 2012 bi sinistré yi amee Grand Yoff sinistré bu métti bi ñu logé leen école HLM Grand Yoff mun naa ne chaque jour ñaari nag lañ doon rey vacances laa ñëwoon deux semaines lañ ma mayoon ma def fi un mois ak population bi parce que ñeewante woon naa leen mënu moon dem bàyyi leen donc tey mun naa ni amul secteur bu nga xamante ni rek mi ngi am ci au niveau de Grand Yoff te ñun suñu loxo ak suñu kàttan nekku si waaye tey boo gisee ñu am ay ambition yeneen ambition yu gën a kawe mooy gëm nañ ñi institution rek moo la mën a permettre nga liggéey comme institution moo la mën a permettre nga liggéey moo mën a tax nga wut ay partenaire moo mën a tax nga wute ay investisseur moo mën a tax nga am signature bi nga xamante ni comme li nga wax ni bâtiment bi dafa am bayre bayre boobu mooy bayre bi nga xamante ni yow lañu dénk ki ñu dénk nag yaa war a gën a sonn yaa doo waroo lekk ba suur yaa ngi wax maa ngi lay dégg sa waxtaan sànq nga nga naan euh, dina nekk maire bu mën a fekkee waaye loolu képp ku ñu dénk boo boo boo boo dafa mel na tey caravane bi ñu doon def rek bu ma yéegoon ni nongu si kaw oto bi gars yi di dem maanaam njaboot gi niñ ko war a gérer duñ ko gere mais tey boo ànd ak ñoom di dox lépp lu am di nga mën a taxaw di nga contrôler di nga mën a ànd ak ñoom ci ñoom ci lépp parce que tey li fa lu fa mënoon xew sa tour la ñuy tudd donc loolu moo tax euh, njiit dafa metti njiit moo war a gën a sonn moo war a euh, damay wax tout temps sama yaay ma ni mais euh, boo jiitoo yow yaa war a aar li la yàlla dénk mais ki jiitu nag mu ki jiitu yàlla moo koy aar donc voilà donc un peu noonu la demee. d'accord euh, Badara Kebe wax dëgg yàlla am nga ci loo xam ne na ko. jar nañu def taxaw seetlu taxaw seetlu bi mooy gis na nañu ci fànn wu ne Badara Kebe teg na ci loxoom wax nga ko léegi léegi ci sociale bi. football bi waaye dafa am leneen loo xamante ne nii yaakaar naa ne da nga ko doon def Baba Babacar suma ma juumul wax dëgg yàlla jël nga fi micro ne der di way lu tax loolu. non xam nga tey euh, man je suis pas un chanteur ah. d'accord doomu adama bu ne suñu borom may na la capacité nga def plusieurs choses à la fois. ok mun naa ni man suma ma c'était à Paris. Paris ak Wally donc moom sama sama frère la bi mu may woowee albumu xel. Mhm. donc c'était juste. au début déconné la woon rek boy, mën naa lii mënoo non noonu la démé ma dugg dégg sama voix mané kon man ma way li donc c'était c'était juste sur des délires après je me rappelle sama yaay mu may Badara yow kan nga gis suñu famille muy way nga war way <laughs> donc euh, mu nekkoon loo xamante ne expérience la woon bul fàtte ni man def naa armée j'ai fait deux ans dans l'armée ah! loolu tamit sama palmarès la bokk donc euh, il nous a donné euh, la casquette de faire plusieurs choses à la fois def naa deux ans dans l'armée oui armée foo nekkoon Casamance nga nekkoon wala Bunkiling wala Saara Yaba wala Bagadaji wala Sëñ Sa Jalle non non euh, man maa ngi woon Bango Bango laa def euh, Bango laa def six mois après ñuy indi ma sapeur pompier bi Sicap ma des fa sept sept mois après jóge foofu dem Asfa jeu championnat Sénégal yi Asfa yeg premier division année boobu maa nekkoon meilleur buteur ok nga ñëw asalam grand yow ci nawetaan bi waaw nawetaan bi donc ñun bi ma nekkee xale bi ñuy joué nawetaan fii euh, benn année laa fi joué ñu jël coupe muy coupe bu maire après euh, man dama dem football yi Europe donc def joué naa Arabie Saoudite Abu Dhabi France Belgique Danemark joué naa dëkk yu bëri si àdduna bi donc li ma def mooy mun nañu football bi. Euh, créé centre après Nawetani soo xoolee fukki at yu mujj HM Grand Yoff jël ci coupe ay six fois. Mhm. donc moy wane ni vraiment ñi ngi gorlu pour développer football local bi. amna club club bi mi ngi ci championnat bi mi ngi jouer championnat national di représenter turu Grand Yoff fépp fépp fu ñu dem ci au niveau local au niveau national aussi. Mhm. donc defe naa ni côté sport bi lolu moy sama devoir te ñi ngi koy continuer ki mujj signé juste 2 mois la mat voilà. ok. wax dëgg yàlla wax na léegi léegi ki mujj signé deux mois la mag waaye Aline Badara Kebe dafa am loo xamante ne foog nga taxaw seetlu ko ndax gis na ni amul benn poste boo xamante ni wala ndombal tànk yoo xamante ni yor ko ci réew mi gis ah man day caam gisuma ko waaye ñu gis lu nu jaaxal lu nu jaaxal mooy bis bu yàlla sàkk la vie de tous les jours da bëgg dëgg ci social ak cas social ndax bu njëkkoon. doon doon wax manjaay noo problème da ngay am sa problème mu régler problème ba dootoo amati problème waaye léegi-léegi ci biir Grand Yoff boo laajte dañ naan Badara Kebe am sa problème mu régler problème ba dootoo amati problème social boobu lan la social moom mbiru yàlla la rek parce que tey euh, xaalis dañuy wax dafa sax si xol waaw euh, donc di ko am di ko joxe yow booy joxe yow yaay gën a kontaan ki ngay jox donc loolu mbiru suñu borom la rek man xawuma sax nan la ma ñëwee donc man comme li may wax rek donc rombo fenn immeuble bañ ñu la Badara Kebe moom moom immeuble bi donc man dama jàpp ni yàlla daf may dimbali faaw may dimbali waate ndax yàlla bu la tànnee say biiru morom am lu mu jaarale sa loxo il faut nga gestu nit ñi dafa mel ni ba si poli ba si politique bii ma dugg rek man politique bii ma dugg social laa ko duggee dama bëgg dimbali askan wi parce que fii laa dëkk doom laa parce que tey boo xoolee candidat yëpp kenn ku si nekk tey ji wax dëgg yàlla boo xoolee candidat yi waa APR te ñoom ñëpp mun naa ni avant Macky Sall fan lañ nekkoon la majeure partie dëkkuñu sax Grand Yoff ñeneen ak ñeneen donc man ni ma li ma gis mooy doom laa doom lii devoir la rek devoir foog ñu def ko foog ñu def ko. jërëjëf devoir la foog ñu def ko waaye mbokk yi seen émission bu baax baa ngi noonu ñu gën koo xam ci autour du Barada waaye nag dañ fay teg ak ndaanaan xale boo xamante ni nee naan la ngéwél gi fal gii la bawoo. neen xaritam du lënkoom nee naa la bu jógee mu jóg bu tëddee mu tëdd bu demee mu dem ah dañ koy delluwaat petit chopet xale bi nga xamanteni actuellement la ilaha illallah lu mo waxul baxul dañu delluwaat petit chopet mu ne der at waa ngi wul gu fal ñu dellu soit ci waxtaan wi doomi mbër day niru mbeur ñu xam ne bayam baayam doomi mbër day niru mbeur ñu xam ne yi baayam Balla Gaye daa niru mbeur ndax du balle say baayam ku def lu baax faw ñu koy waxal ku fi def lu baax faw ñu lay waxal te olof nee na ku sa yaay mënoon yaayam Badara Kebe ku sa baay mënoon baayam ku la yam Kebe dalaa xam lu la waay wax dalaa sosal sa yaay tasul fayul tukkiwul ya kenn jëliwu ko Badara réew mënoo si soo du gis Badara lu mu fii la ko Baye lu mu am fii la ko indi lu mu am rek fii la ko indi lu mu am fii la ko indi Badara Kebe ndegam fii la juddoo fii la màggee fii la ko xam fii la juddoo du fii la màggee fii la ko xam kon fii lañ lay fal fa mu neex ñu te dara du yëngu fii la juddoo te fii la màggee fii la ko xamee Bamba fii la juddoo du fii la màggee fii kon fii lañ koy falee ba mu neex ñu dara du yëngu bilaay waaw waaw du nee naa kaa dafay ah yàgg ma yëngal ndeysaan yàgg faw sans maam faw sans maam te lu mënta ñàkk faw ñu koy defit te Badara Kebe moom la ñu am te moo ñu gënal te yowa yowa yowa yowa booba du moom mana mana mana mana waaye it booba du moom te fukki junni fukki junni fukki fukki junni ñaar fukki junni te ñu ku ñëlu ñu ku ñëlu ku ñu ne fii ñu ne la fii ñëlu Badara Kebe bàyyu Serigne Fallou kenn amul fayam Serigne Fallou la doy loo Serigne mi nga doy loo alaaji la xalifa la Touba kak la far ak tafsir la càngede poro bul til bul ragal jëlal sëñ Fallu teg ci sa kanam bul til bul ragal loxo yi badara bul til bul ragal jëlal sëñ Fallu teg ci sa kanam bul til bul ragal waaw xam nga jàpp te wa bàyyi as goro ko man goro mag mu la seet si dimbale ko ko nu way mel jox ko ko cërëm kebe bi lay nga dëkkee du man kese defal nga koy gone def ko ci daara yi def ko ci nawetaan bi def ko ci mbënd mi li def ko ci école yi e li mu def ci Grand Yoff kenn sakaata yéen da ko biirum kaata fayu la ilaha jërëjëf kaata fayu kaata fayu jërëjëf ku la ma sakaata yéen da ko biirum kaata fayu jërëjëf jërëjëf man day man day man day caam man day caam tiit naa man day caam man day caam tiit naa waaye tiitaat naa li tax ma tiit lenn kese la li tax ma tiit wax dëgg yàlla lenn kese la franchement parler petit copet yi ma déçu si doma laaj lu tu as bien parlé ndax li nga doon boo ko bañee daa fekk nga gën cee ñaaw waaye nag alhamdulilah rabbil alamin ba nga nekkee doomu géwél yow ba nga juddoo laa xam ngay don petit copet ba dégg nga li wax loolu ba nga ba nga ne uwee laa xam ne yow taasukat ngay doon yàlla na la yàlla sagal waaye mbokki yi dañuy delluwaat ci plateau bi nee naa la autour du bras dañuy lay demee dañuy ñëw ñu toog waxtaan li nga xamante ne nii mooy njëriñu Grand Yoff waaye Badara Kebe ñu ñu toog laps de temps Badara Kebe ne damay dama génn ci football way naa def naa social waaye léegi dafa am sama bët bu fa xamante ne ni laa ko teg lii nga xamante ne nii dama koy dimbalee Grand Yoff la vie de tous les jours jot na nag léegi ma dem ci mairie bi ma dem ci mairie bi toog fa mën a jàppale sama askan wala mën a jàppale sama gox dinañ ci ñëw léegi-léegi Badara lan moo la poussé nga bëgg a dem ci mairie bi pour bëgg doon candidature pour jàppale sa askan lu waral loolu pourquoi pas pourquoi pas pas pas pas pas pas pas pas pas pourquoi pas Wow. pourquoi pas. xam wara lu war ne ci émission pas xamante ni pourquoi pas. Mon naa ambition et compétence bi moko moko déjà lutax lutax ñu bëgg bi Ben demande la demande population bi

waaw mbooloo mi ñu ànd ak déglu kii kilifa gi nga xamante ni doon ko feewoo woo war a waxtaan ak moom. Mm. ci nee la caam ma ne ko naan mi ne ma damaa xam Grand Yoff. Mm. te tey ñu war a waxtaanee ci Grand Yoff. ana lan mooy Grand Yoff. candidat yu bëri boo leen laajoon tey Arafat ak Cité Millionnaire fan la yem mënuñu la ko wax. yow da nga koo xam. damaa xam Grand Yoff. Badara Kebe fan la ak Arafat fan la Arafat yem. Arafat Arafat ak Cité millionaire marché bi moo leen séparé. séparé waaw. séparé. xam nga mhm. waxuma la sax Arafat ba ngay dem marché bi moo nekk seen diggante ñoom ñaar nga dem ba début marché bi nga wër dem ba jaar ba euh, monument monument bi nga wàcc maanaam HLM Grand Yoff moo leen départagé côté bii côté bii HLM Grand Yoff moo nekk si ñun côté bii cité millénaire côté bii euh, doole la en face côté bii doole la côté bii police bi la marché yëpp sa jëkkër bi côté bii nii Euh, euh, Scar Urbam parce que Scar Urbam côté ak Arafat d'accord mm. mais wax débat bi ko waaw très bien est-ce que gisoo ni télul mm-hmm. mm-hmm. ndax wax dëgg yalla duma ni mobiliser ben ni 6 personnes 7 personnes. Mm. jënd ay jox dem ci mairie. nekkul na lu may dem ci maire yi bu fekkee nag loolu nga jàppe ne moom mooy nekk ci maire yi kon ba kam dana am taxaw seetlu waaw moo tax man la maire yi compétence moo koy liggéey tey nag dañu bëgg a waxtaan ci compétence yi compétence bi tey mun naa ni tey boo jëlee Grand Yoff suñu programme li ñu bëgg li ñu bëgg def Grand Yoff li ci njëkk mooy euh, assainissement bi assainissement bi da ngaa mën da ngaa mën dara ci assainissement bu Grand Yoff waaw mën nañ ci dara kay parce que assainissement à Grand Yoff il faut ay kër yoo xamante ne ay cinq personnes la doon def kër yi kër yi léegi ay étages lañu. ok léegi étages yi tey jii ay étages pas gasama étage beneen ak beneen ay deux cent personnes ci kër. Mhm. ku ne di utiliser ndox xam nga ni du euh, caniveau yooyu ñu fa def moom ndox mi moo koy moo koy tenir. nan la def ba loolu changé. loolu da nga koy da dindi tuyau yooyu gis nga ñun bi ñu nekkee xale ay tuyau ñoo amoon tuyau yoo xam en en caoutchouc la. Mhm. tuyau yooyu tey mënatul contenir ndox mi. da ngay wut ay tuyaux yi nga gis nii ñu koy def nii ci ci seen ci travaux yi ñuy def tuyaux tuyaux en béton yi tuyaux yu nganda yooyu ngay jël ñun soxlawuñu ay pompe ñu naan canal bi fii pompe bi dafa paan ak waa ji dugg noonoo am na tuyaux yoo xamante ni boo ko jëlee def ko si reprendre assainissement bi yëpp mu dem euh, canalu Grand Yoff canalu Grand Yoff mu dem zone de captage zone de captage boobu nga mën ko tëj def si kaw centre commercial ndox mi jaar si suuf mu mën a mu mën a dem géeju yaraax d'accord donc il faut reprendre l'assainissement mais d'accord ñu reprendre assainissement bi may nawet loolu du loolu du cap est-ce que capacité monsieur le maire la ma ni il faut bu ñu la falee il faut il faut aller chercher des partenaires et amener des investisseurs. mais est-ce que a ne ki nga xam ne mooy président de tous les sénégalais waroon na ci mën a dugal loxoom ba assainissement bi lépp dem lépp dem. man maa ngi nii sama sama social bi may def man kan moo ma si jàppale. kenn waaw léegi yow bu ñu la dénkee yow tamit liggéeyal. booy booy liggéey kan mooy wañaar sa loxo nga ni man booy liggéey kan mooy wañaar sa loxo yow doo gis bu bu bu su mbënd amee Grand Yoff ma ñëw indil leen ay moto pompe dëgg la waaw léegi mais loolu noonu mais mais loolu acte acte citoyenneté la mais dafa am ñoo xamante ne moom loolu ñoom la war parce que Sénégal moo dul def prévention ñun vingt et unième siècle la ñuy dund léegi dafa am météo météo da lay wax tey day taw suba du taw mais ñun dañuy bàyyi ba mu yàqu ba pare ñu ñëw soog a constater ay ay ay dégâts. lu tax mënuñu mutu mënuñu mënuñu def prévention balaa loolu di am. d' accord euh, Badara Kebe du ma jël temps xoj ko foofu waaye dafa am leneen loo xamante ni nii dañ koy dund ci Grand Yoff la vie de tous les jours. Hmm. ñi nga xamante ni mooy wàllu agression. nga xamante ni nii ñu ngi koy dund bis bu yàlla sàkk Badara Kebe da nga cee mën dara. maa ngi ci man xaaruma ñu fal ma de maa ngi ci tey boo xoolee. wax dëgg yàlla xam nga ni violence bi wàññeeku na à Grand Yoff soo xoolee tey am na ñoo xamante ni dañ doon def naka sudul noonu dama leen récupérer yow bëri na ok bëri na bëri na ay doomu Grand Yoff yoo xamante ne tey euh, bu ñu bu ñu bi leen yàlla tegee nattu bi ñu génnee dama leen récupérer takkal leen jabar wutal leen liggéey delloo si nañ si société bi xale yi nekkoon suuf suufu pont bi di Guinz ak di Mandi ñëpp leen fa daan romb kenn kenn mosu leen calculer mais chaque année bu ma ñëwoon vacances damay dem seeti leen xool na laa leen dimbale xool nan laa leen di ginde donc tey jii dafa am loo xamante ni devoir la gis nga ab réew mënoo ko defar te defaroo jikko yi ab réew munoo ko defar te population ba fay ba fay yeewoo dimbalante dimbalante suñu biir jàppalante wuñu suñu biir loolu force la tey mun naa ni euh, tey jii bu nit ñi amee liggéey euh, banditisme bi dina wàññeeku agression bi dina wàññeeku taxawaalu bi dina wàññeeku loolu nag dangay njëkk defal nit ñi formation bara ngay créer emploi ok création balaa ngay balaa créer ay employé da ngay def formation mën naa ni permis de construction boo koy tabax mairie bi moo la jox. Hmm. mais mën na ku ñëw di bëgg permis de construction ñu jox la ko. ñun en échange mooy da ngay jël dix doomu Grand Yoff ñu liggéey. Hmm. nga former ñi en menuiserie en maçonnerie en lépp luy dem si biir kër. kuy am 5000 francs par jour mois cent cinquante bu amé ñaari ci kër ñaari xalé yu am loolu muy 300000 ci biir kër xalé yu dinañ talé na lu dul way waaye nag Badara Kebe bopp boo xamante ne nii kaasub doos bu ko naanee tàgg ak nga bëgg cee boole loo xamante ne nii maara détaali jël kaana kaju jël topet jël jiin doon gasia loolu yëpp nga jël ko yëpp ko sa bopp la du yomb waa loolu loolu loolu yëpp loolu yëpp déggoo li ma la wax nee naa la ñun juste à Grand a plus de 600 bars lu dëgg pardon ma ne juste Grand Yoff ya plus de 600 bars 600 bars 600 bars ok xam nga loolu tamit loolu tamit daf defarul defarul gox baar yi dañoo bëre baar clandestin yi bëre maa ngi koy wax sànq ni ah, grand F rek laay gis ay xale yu ndaw yu am 6 ans 7 ans amuñu sax 10 ans dugg ci pari foot yi di di di di carte xaalis. Mm-hmm. lu dëgg dañu am 200 daw daw carte xaalis. naar bee naar bee. waaw waaw léegi naar bi moom la moo tax demul gànnaar wala dem Maroc mu dëkk xaw ma fan la dëkk. Mm-hmm. lu tax ñoom ñu permettre leen ñu ñëw suñu koñ di fi di fi carte xaalis. gis nga y a des choses yoo xamante ne gis nga ab réew du tappale du ko liggéey. pardon ab réew. ab gox tappale du ko liggéey. tappale du ko liggéey. non tappale mënul liggéey loolu. Badara Kebe wax jooju dafa mel ni dafa mel ni dafa am foo ko bëgg def duut baaraam. waaw xam nga lu tax. waaw parce que ñun Sénégal dañu am ay njiit yoo xamante ni. waaw ñoom dañuy ñun ñun ñoo ñun ñun ñooy population bu peuple bi. ok tey la population Grand Yoff quatre-vingt pour cent yëpp ay jeunes lañu. d'accord dafa bëre ndaw ils sont livrés à eux-mêmes eux-mêmes. li fi taxaw à ay mêmes Ils sont ñu bare eux nañ Ils ñu bare à yu bare ils espoir livrés yu bare musuñu dugg sont plaza à plaza ñun ñëpp ko eux musuñu dem sont xamuñu ko ci télé rek lañ koy gis. mais tamit Badara Kebe xalé ne ko muy ay mêmes classe xalé buñu yéwo di dem di dem jàngi sen wajuri amuñu luñu leen jox ñu jënd ndéki ok wa légui yow boo bu dee xale nga nga am 7 ans wala 8 ans 10 ans mais kooku ñemewul xif mu wara jang journée continue ndéki wul mu dem ba heure midi 13 h mais maître bi bu koy bu koy expliquer dara ci tableau bi mais du comprendre dara ok les les parents les familles sont impuissants légui kër yi da ngay gis ben nek papa yaay do maam seut ñëpp bokk ben nek mais les conditions sont très difficiles. ok bi nan lay jangé, nan lay concentré qui Ki bu bëggé qui ki di fo, le di vous mais lolo, mais lolo, nan la mais lolo, motax yi ba sa yaay ni la commencé na la déjà table bi muy jaay nga nga commencé table bi di 100 francs 200 francs mais da ngay D'accord. Kebe du ñu ak yow ba te laalu ni li nga xamante ni nii mooy wàllu culture ku ne xam ne ni nii culture bokk na ci ci loo xamante ni nii mën naa mën a jàppale réew mi tey au niveau de Grand Yoff moom ay ndaanaan yoo xamante ni nii yàgg naa feeñ ci ci milieu Grand Yoff bi yaa xam ngay peintre yaa xam ngay artiste comédien yaa xam ngay euh, ngay ngay tëggkatu sabar wala tëggkatu jëmbi yaa xam ngay fecc bale ak culture yi fi maanaam ñu gis li nga xamante ni nii mooy culture bi au niveau de Grand Yoff dafa wàcc lu waral loolu ñàkk jappalé pardon ñàkk jappalé lutax mais Grand Yoff moo gën a dellu ginnaaw ci commune la bu wax loolu Badara Kebe yu tamit. Thiamas tay jëlal euh, Grand Yoff est-ce que musul am roi des arènes. roi des arènes. fi Grand Yoff. musul am Grand Yoff amul amul club buy jouer première division professionnel Grand Yoff artistes yi ils sont livrés à eux-mêmes. Mm-hmm. Grand Yoff bale wala booy di répéter théâtre sama siège dañuy ñëw di répéter hmm wa lutax équipe nawetaan buñuy regrouper ñuy wu siège ba la ñuy ñëw di regrouper wu même les clubs même les équipes nawetaan ils ont même pas de subvention ñi def culture fi nañ ma wax bu dé dañ leen di subventionné man da yëguma ko te pourtant lool yépp dafa bokk dafa bokk ci fonctionnement wu mairie mhm. dafa am budget social sport c'est des budgets. mais mais mais mais man japp ni ni a une commune. wax mm. culture culture nek ci commune bi man japp naa ni wax deug yalla ña fa nek ñuy dund ci culture wala a taxaw. d'ego wax dama artistes ñi ngi ni tok budé ñom ils sont subventionnés wala ñom ñi ngi leen di culture bi ñom nañu wax. d'accord tay duñu wax ba jugal té amul ci benen tombe bo dañ koy Badara Kebe am foo xamante ne nii teg na fa bëtam ñëw naa ci léegi léegi. Mhm. dama caam ma ne ko naam mi na funtu ni soxlaatuma dara maire bi rek laa soxla. Mhm. objectif boobu ak liggéey boobu liggéey boobu lan la. xam nga tey tey euh, comme li Ama Balde di wax nan dañ ma yónni yàkkamti ma. dañ la yónni ba pare yàkkamti ma. yow ku la yónni. waa Grand Yoff. la ilaha illallah. Thiamas yow li nga gis tey rek. yow yow yaa ni mosoo ko gis. Mhm. te fii nga juddoo màggee fi yaroo fi. Mhm. te lool lépp 48 heures kat lañ ko préparé. pardon ma ne ci ñaari fan la nga gis lépp ci ñaari fan lañ ko préparé. Mhm. ni leen ñëw leen dimanche ñëpp ñëw dimanche matin. nit ñi ñëw te te leen dara. yow gis nga ko. dëgg la eh, ku mën na nga def. d' accord d' accord ku baax. kul xiir bi dalay dal dalay dal doxal tàggi gi gi ta dem rajo ba càcce gi dara ji ma càccee caw sa xiir jërëjëf man dañu roof yàqu jërëjëf caw sa xiir mais mais mais mais mais petit copet damaa bëgg rek nga may bàyyi ma léeg-léeg ma lay mosal nga doxal ndax dañuy léeg-léeg dëkk ci sama gan gii damay nekk ak moom foo xamante ni nii yaa ne léegi léegi kaata fayu yaa ne ma kaata fayu euh, Alioune Badara Kébé ma bëgg am nag grand yi ñu waxtaan kii nga xamante ne nii mooy monsieur le maire maa ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm ñu dénk ko réew mi hmm. wax dëgg yàlla mu ciy liggéey liggéey bu am solo hmm. tey mu indil no stade loo xamante ni nii wax dëgg yàlla xalaatuñu woon kon ci biir Grand Yoff tey indi na fi hôpital hôpital bu mag boo xamante ni nii wax dëgg yàlla ñu doon wasi ne fële ca ba tey ca da ngay waaxu def dugg ca maternité ba tey foyer des jeunes bi ñu ci tabaxaat ba fi ñu toog wax dëgg yàlla ma ci defaraat ay mbir yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla ñu gis liggéey boo xamante ni mu ngi koy liggéey au niveau de Grand Yoff li monsieur le def diggante sept ans bi yëpp en tant que Badara Kébé lan nga ko jàngatee. man ñett yi nga fi lim entre deux mille vingt deux ak mille vingt quatre man ci laa koy liggéey. loo bëgg a wax foofu. dama ne. dama ne. waaw ku la jox ndékki. ku la jox ndékki. jox la añ. jox la añ la nee ren nga mën koo gëm. dëgg la. dama mhm. ñett yi nga fi lim.

da ngay toog ni boo demee parcelle boo demee euh, euh, fii yoof gii seen stade bi boo demee feneen wëral stade yi nga xool ndax gis nga fi stade bu am tribune boo xamante ni wax dëgg yàlla boo ko xoolee nii da ngay da da ngay yéemu ci yàlla mm-hmm. waaw waa xam nga Badara Kebe wax dëgg yàlla sportif nga mm. tey bu ñu tuddee estade bi da dama bëgg ñu da am taxaw seetlu waaw ndax wax dëgg yàlla gis na ni travaux yi mi ngi dem dañoo waroon weesu fii dañoo waroon dañoo waroon weesu fii. weesu fii. Grand Yoff war na weesu fii. lu tax lan moo tax commune yu ñu dendal yëpp raw nu. a ah kon yoo da nga jàppale Grand Yoff raw. Oh, ah yow xamoo ni Grand Yoff dañ ñu raw. kan raw ñëpp ñu raw ñi ñu dendal ñëpp ñu raw. loolu yow xam nga ko ñun ñëpp a ngi joué nawetaan ba mu des ñun lu tax joué ñu nawetaan amuñu stade. ok Grand Yoff n'a nee naa amul équipe football. boo xamante ni tey équipe football bi fi raw ah Grand Yoff maa moom. nga ni régional Grand Yoff régional lay jiyee. régional bi nga xamante ni Grand Yoff moo ko moom mairie bi di ko subventionné régional lay joué équipe bi fi maa ko moom. dëgg loolu équipe bi fi raw yaa ko moom waaye Badara Kebe damaa bëgg am ñoo ko taxaw seetlu bu ñu génnee ci sport tuuti ah nag dañuy dugg ci wàllu santé. ñu gis ci mu liggéey ci liggéey bu am solo wax dëgg yàlla bu la pont jamee sax wala dara jam la sa xel day dem fee nga xamante ne mooy maternité bi. li ñu fa woon yëpp mu dugal ko fo noonu nga jàngatee loolu. xam nga tey Thiamas maanaam poste de santé bii ngay wax. poste de santé ban. maanaam tey jii consultation boo demoon SAMU léegi. Mhm. consultation guddi gi urgent urgence 5000 ngay fay. dëgg la bu lay bindal garab da ngay laaj médecin bi baadu cher. dëgg la parce que amoo ko. te pourtant de war ngaa mën a wuti. ay partenaires. ay partenaires yo xamanteni tay dañ lay jox tout ce qui est médical. ay lits médicaux ay garab les la dañ lay tégal ay conteneurs 40 pieds yo xamanteni exonération kese ngay fay. Hein? ay valeur 200 millions 300 millions do ci fay dara luddul exonération té 4 millions kese la. d'accord lu toll ni Grand Yoff poste de santé bu ne war am ambulance. deug la war nañu am ay corbillard lu toll ni Grand Yoff lu toll ni Grand Yoff commune bo xamanteni 8 km la commune Il y' a presque 500 000 habitants Ben corbillard la ñam Ben corbillard. Hein? te corbillard bi mënul daw goudi amul lampe. waaw li may wax waaye yu timit bay li ngay wax yu timit bay li ngay wax. xam nga tay xam nga tay man dama bëgg bu débat ñu débat ci lo xamantene man duma nit kuy xasse d'accord duma nit damay. waaw man mais dama ni. Grand Yoff grand jox 2022 ba

mun naa ni euh, mandat seen mandat 2024 la commencé. Mhm. ñu ngi 2021. maanaam seen mandat 2019 la waroon jeex. Mhm. laa ñu ngi 2021 ñu ngi dugg seen ñoom seen deuxième mandat. Mhm. du dëgg. dëgg la du dëgg dëgg la. donc mun naa ne stade bi ngay wax ak foyer bi ngay wax si deuxième mandat bi lay dugg. donc bu doon ñoom tey dañu waroon taxaw si 2019 ban bilan lañ ñuy présenté. parce que ñom 2019 la sen mandat jeex. d'accord donc bu doon 2019 donc tay xam nga luma bëgg moy lan. moy mhm. li dañ ci tek suñu loxo. moy lan moy am nañ foyer bo xam R plus 5 la foyer bi day am salle de réception euh, salle de sport am restauration sibir, biir am salle de conférence am salle de bi nga xamanteni wax dëgg yàlla xale jigéen kuy ku ku war a marié wala góor yi ñu yóbbu leen foofu seen nawle yi ñun loolu lañ soxla mais tey jii ñun. tey boo bëggoon tey jii suba suba suba suba nga bëgg réceptionné wala tey jii nga bëgg def une formation est-ce que foyer bi nga koy defee. ci mbedd mi ngay ngay da ngay dem wuti autorisation baare mbedd mi boo ko amul police di fa di fa ñëw. ci commune boo xamante ne tey ci digg Ndakaaru nga nekk commune boo xamante ne tey ci regroupe plus de quatre cent à cinq cent mille habitants. commune boo xamante ni dafa am ressource. commune boo xamante ne dafa am dafa am ressource am doom ami compétence waroon nañu mën dépasser foofu quand même nga ni commune bi dafa am lan ressource ressource waaw dafa am budget yéen budget bi ñaata la ah, am nañ budget budget bi ñoom ñoom ñoo ko xam xam naa ko mais ay du ma si dugg ok xam-xam hmm. nga mais xam nga budget bi waaw ah, ah waaw du ma ko xam ab réew ab réew ak dëkk balaa nga koy jël da nga koy xam <laughs> jërëjëf déggal li mu wax am réew wala am dëkk balaa nga ci nen tiis sa loxo ah da xam nag réew moomu lan la hmm. waaye Alioune Badara Kébé dafa am loo xam ne ko bëgg a taxaw seetlu diggante ban koo falee ba sunu jona yàlla tey lan nga gis loo xamante ne nii boo ko gisee di nga ne gonga wax digg yàlla Grand Yoff avancé na ci domaine bii. non xam nga tey xam nga tey dañuy waxtaan man ma jóob sama sama sama frère sama gaayan la day ñëw sama gàlle dañuy waxtaan. Mm-hmm. Mm-hmm. yaayam sama bi ma. li bima ko am ambition li nit ñi di ko wax depuis 2014 nit ñi ngi makay wax dama ñew ba si mom togo mom ma ko dama bëgg jël maire bi. yow bi waaw ah dama na ba ci ya ma ko na ñaanal ma jël maire bi lu tax duma kadef? ko def. <laughs> Badara yow am nga fit de. non wa Grand f loolu lañ bëgg. du la xalé bi nan kaata fa yi tax bëgg def du ka mm, dama ni. dama ni. Ah. diwa ngi nee di ñew yalla mo koy def. deug la dom jëriñ lañ koy doyé deug la dom fi aduna bi. léppay jeex. dëgg la du dëgg. dëgg la kon ku si nekk na nga def sa partition. dox mission bi nga war a dox bu jeexee nga dem. ok man footballeur la woon semaine passée laa jóge États-Unis avant boobu maa ngi woon tournée européenne. ok li ma am dama ko liggéey Europe ñëw boo ko ak waa fii. dëgg la wax ma fii kan la ñuy jox visa mu fi toog. dëgg la ku jox visa doo fi fanaan. nga ni doo fi fanaan. wax ga dëgg da ngay dem sa yoon. yàlla nga waxal. man ma dem liggéey ñëw toog di dox ba xoox <laughs> waaye xam nga ne bu ma bëggul Grand Yoff xaw ma kan moo bëgg Grand Yoff dëgg la ñoom ñëpp kenn ku si nekk bu guddee neneen ngay def nga ni waa di non comme li may comme li may dund nii ñoom xalaatuñ ko d'accord mais Badara Kebe duñu wax loolu te duggunu sa diggante homme politique yi nga xamante ni ñoo nekk ci niveau de Grand Yoff mhm. sa diggante seex Bakhoum mën na koo xam Cheikh Bakhoum sama frère la ok Mora Cissé sama frère la mhm. Adama Faye sama frère la ñoom ñëpp Mora big rek ñi ba ay quatre heures du matin. téléphone waaw. ba kon ba li ma dégg li am na li ma dégg de. ñu waxtaan biig ba trois heures quatre heures du matin. ok waaw ma ne. Grand Yoff ñëpp ku ci nekk ku waxal yàlla rek te yàlla tax. Mhm. xam na ni Grand Yoff moom bay woy na mbuus. béy woy na mbuus. waaw d'accord léegi nag fenn rek laa bëggoon nga leeral ma foofu tuuti. Mm. laata may laal beneen point bi. Mm. mooy sept ans yi nga xamante ni nii sunu monsieur le maire mi ngi fi nekk. boobu ah. léegi di ko liggéey. lan moo fi baax ba yow sa wàllu bopp nga mën cee teg sa bët ne lii baax na fi. xam nga man xam nga man mooy mooy li ma la wax léegi. wala danoo tardé. xam nga man li ma la mën a wax mooy. waaw li ma la mën a wax mooy. te ma gëm ko. mooy ñun sept ans yi Grand Yoff waa léegi Grand yof yow yaa ngi dugg ci koñ yi yow bi ñuy mujjee dugg daje Arafat. mais Arafat fofu tali bobu man mako ko mom mako deug ko. la pourtant ay ndaran la wut ay li di dindi. deug la yow nga fekk ka yem si ba nga fay jaar tay suba dafa meron na kamb gabar xawma lan. du mhm. deug lu mhm. man makoy def. parce que dom la devoir la makoy remercier bu baax mom parce que vraiment. Mhm. ku ñak ki ñaan la ndax tok na ala télé. mënon nako baña def. deug la ni maa ngi Badara Kebe lepul luma wara def Grand Yoff bala makoy def mom mu def ko. mais tamit damay xam nga tay duma mëna wax tay ñu rond point la. chaque fois chaque goudi ya ngiss xalé yi di football. Mhm. mais pourtant mënoon na am ay barrières de sécurité. pourquoi parce que c'est dangereux. dëgg la bal bi day traverser tali bi. Mhm. bu traversé tali xalé yi traverser auto mhm. mënu leen fiir. du deug mënu won am ay barrières de sécurité. du deug dëgg mënu woon ay am am ay barrières de sécurité yo xamante day am porte. mën nañ fi def ay toboggan def ay quelques jeux. parce que loolu lañu wara a def mais mais nii ñu ko bàyyee man bu man la. dama koy def ay barrières. bu doon bu doon yow la da nga koy da nga def ay. barrières dama ay barrières yu gàtt de sécurité def fi ay lampes solaires. yu gàtt yoo xamante ne day am jardin. d' accord question bi moom fii ma toog la ñëwee samam xel dama ne naa la ko barasaale rek. Mhm. muy du a gis ay say jegeñaale ñi nga xamante ni nii tey danoo nekkoon ci yow. Ah. ku leen xam-xam la ñooñu. Ah. tey àdduna dox ba ñoom ñu xëy suba na doon doon doon bëgg a seen bopp wut maire yi. Mm. lan nga xalaat ci loolu. non loolu moom man xam nga loolu moom du ma si wax parce que. ku si nekk ci wax. déedéet du ma si wax waaye non ci wax da ngaa bëgg a mairie de. man. Grand Yoff gestu gestu bi. Grand Yoff bi xam naa ko R plus R plus 4 laa koy def. ah nga ni. waaye. Thiamas boo waree boo munoo yor lii di louer annexe. pardon. ma ni munoo yor lii di louer annexe. munoo yor lii di louer kër jaambur. kon da nga jàkka ni daal lii gunu lii kër jàmbur loolu xaas bu ñuy sànni la ah. xanaa xanaa fondation bi baaxul. du du du R plus 1 la. waaw mënuñu teg leneen R plus 2 R plus 3 wala. absolument waaw boo ko tegee R plus 2 R plus 3 fee fee ngay loué bu doon bu doon 1 million la rek par weer 7 ans rek ëpp na 100 millions. dëgg la 50 millions boo ko yokkee fii doo ko def R plus 3. éliminer état civil ba indi ko fii informatiser lépp. ku bëgg këyit dangay taxaw léegi ñu defaral la léegi. mais dangay ngay bëgg këyit ñëw ni Aline Badara laa tudd ñun demal la ba mois prochain. ah loolu développement la. <laughs> Badara bàyyi ma léegi Aline euh, tey wax dëgg yàlla gis nañu coono gi nekk ci yow gis nañu sonn gi ak say mbokk. Hmm. waaye ci tënk rek. moom loo xamante ni nii damaa bëgg nga joxal ma ko waa Grand Yoff. Hmm. muy Aline Badara Kébé taxawaayam fi mu jëm li mu bëgg lan la bëgg a def ci biir Grand Yoff ban taxawaay la bëgg waa ci waa Grand Yoff ñu bàyyi la kàddu gi Alioune Badara Beye ñu ñu digg sa programme donte ko génnagul waaye nga mosal na ci tuuti loo xamante ni ne waa Grand Yoff waaye dinañ ci mën a gis seen bopp say mbokk gis seen bopp waaye say jegeñaale gis seen bopp. grand euh, euh, Thiamas daal li ma la mën a wax ci lu gàtt mooy maanaam Grand Yoff incha allahu rabbi. 2022. Mhm. 2022 bii. nga xamante ni ñetti weer ci des. incha allahu rabbi suñ fi mhm. yàlla bàyyi mhm. de deux mille vingt deux à deux vingt quatre. Grand Yoff dina mooy doon commune bu dàq ci commune yi. xale bi yàlla ma yàlla teg moom. Mm, mm, dinañ ci ñëw <laughs> xale bi xale bi dina ma ruube Aline. maa ngi nuyu Maajoor. waaw taxaw suñu frère frère di ko ah. koo xamante ni nii ah. communicateur traditionnel ah, sànq ba léegi mi ngi may piis nee na xam naa ni dafa bëgg dugg ci plateau bi am ay kaddu yoo xamante ni nii ay kaddu témoignage yoo xam da ko bëgg a def sa diggante ak moom ana major ndeysaan Madior ngi noonu di suñu mbokk géwal nekk un communicateur traditionnel di koo xamante ni wax dëgg yàlla bu bu addooyee kaddu nga xam ne nag doomu géwal wax na xale bi ba mu juddoo laa xam ne waxkat lay doon dooma laaj lu tax bu waxee mu neex bu jëfee mu neex di xale boo xamante ni nii wax dëgg yàlla dafa bëgg homme politique yi ana Madior laa ilaaha illallaah toogal ni Madior c'est la famille <laughs> jërëjëf ci a salaamaaleykum sama nawle maa la ziar sama mbokk géwël ba mhm. ndi ma nekk communicateur noonu ko doone dëgg la ma nekk ci rajo nga nekk ci télé dëgg la di ci liggéey liggéey gu mucc ayib. dëgg la plateau bi mhm. ku ne toog na fi. dëgg la mbébétu ku soxla ku ne ci mairie ci mairie Grand Yoff sunu ginnaaw. Mhm. toog nga fi. dëgg la waaye tey nag eh, danga dalal. foofu mën naa ñëw. waaw mu la neexee. li ma jaaxal mooy mën nga ma laaj lu ma jaaxal. lu la jaaxal caa. tey dañoo invité Alioune Badara Kébé nga sañ sa bulo bu baax ñëw toog. ama lu ma fortu bëy nga ne ma caam ma ne kon ma ne la naam nga ne ma ki nga invité tey dina tax ma def dérangement déplacement ñëw lu waral loolu xam nga nee nañu nit ki mënta wokk lu dul fii xasan fii xasan rek nga wokk fii xasan rek nga mën a wokk ndax yëg-yëg fa nga koy yëgee fa nga wokk foofoo xasan merci ndax euh, Alioune Badara mii dafa ma boole ci biiram damay géwulu Grand Yoff Mhm. awma sens interdit à Grand Yoff Waye Aline Badara mi, bamuy tambali tàmbali njëlbeen ay yefam. daf may wo, ñuy def tourner. bu Andna ak mom tournée ak jabaru international bi muy euh, président Libéria George Weah George Weah footballeur bu mag bi ñoo footballandoo jabaram ñew mu and ak Aline Badara mhm. ay projet yo xamanteni ngir Grand Yoff la mhm. ànd naa ak Alioune Badara ci ay remise yu muy jox ay doomi Grand Yoff kon dal yaa fekke ma fekkee yaa fekke moo tax man lu ne mën naa ko waxal ci ku ne d'accord tey ñu gis ko mu am taxawaay bu taxawaay woo xamante ni wax dëgg yàlla muy suñu fierté nekk doomi Grand Yoff Alioune loo bëgg mi ne ma càmm damaa bëgg ànd ak samay mbokk mhm. ànd ak samay nawle ànd ak ñi nga xamante ni nii ñoo dugg Grand Yoff waaxu dem ci mairie bi nan nga jàngatee loolu en tant que porteur de voix. waaw euh, li ma ciy wax mooy que gis nga nit boo dëkkee ci gox di yeewu ci gox. am nga sañ-sañu yëkkati sa loxo ne bëgg naa lii. la ilaha loolu ca yow mm. mii sa di communicateur. yow mi di porte parole du Grand Yoff am nga sañ-sañu yëkkati loxo ne bëgg naa mairie Grand Yoff mm. rawatina moom avant mu yëkkati loxo laa lay wax ne bëgg naa mairie bi nit ñi xamoon nañu kii Alioune Badara Kébé ok ndax sur le plan social dëgg la da ci doon yëngu yëngu am am am am solo est-ce que xam nga leen man dox naa gis ay handicapé yow mii waaw moom mu jël oto def ci ay chaise roulante fekk handicapé toog foogeewul mu yëkkati jox ko ko la ilaha illallah ñaan gu la bett gi noonu mën na laa gaañ ko nag ci Grand Yoff ñaan gu la xam nga kon kooku mi ngi dox la mi ngi dox soxlay askan wi. dëgg la ndax it yàlla rek moo fi ne ñun moom la ñuy waxal. jërëjëf tey Alioune Badara Kébé ñu jékki ba ci yàgg Madior ñëw toog yëkkati kàddu yi la la def. waaw Madior moom sama frère la sama mbokku taalibe la. dëgg la donc euh, maanaam bi ñu mujj rek ñu ngi dem ci cheikh cheikh bi cheikh Khadim. donc vraiment bi ñu yëgee ni cheikh bi dafa soxla ay téere ak yooyu pour xale yi mhm. seen njàng daara ji mhm. mun naa ni ñoo ànd dem joxe ko mhm. mun naa ni lu bare moom da ko fekkee a dëgg yàlla muy nit ku baax comme li mu wax rek léegi amul sens di fenn Grand Yoff muy fierté Grand Yoff donc Grand dafa war a valoriser ay doomam Grand dafa war a valoriser ay doomam ba ci rajo Afia bii ñu am tey waroon na mën a dépasser fii dama ni gis nga Thiamas Thiamas man su ma tëddee du ma nelaw. nga ni man bu ma tëddee du ma nelaw. waaw loolu boo ma ko waxee dinaa ko gëm ndax am na benn heure boo xam ne maa ngi la woo na la Badara xam da ngay nelaw nga ne ma yu ëpp naa nelaw nelawatuma. gars yi du leen may dara. nga ni yi maa leen di mujjee tëdd di leen njëkk yeewu. la ilaha bi bàyyi ma yow. xam nga lu tax lu tax. maanaam nit ki bu yàlla. bu la yàlla jiitalee. Mhm. da nga koy xam. dëgg la bu yàlla jiitalee suñu borom. bu joxe dara. te gënoo kenn mu teg la fa. Mhm. yow da ngay xam loolu. dëgg la te ñoom ñëpp képp kuy candidat. Mhm. reconnaître reconnaître nga yow au plus profond de toi soo wéeteeg sa bopp xamante ni ñun ñoo nekk ci kanam. dëgg la ñoom ku nekk nag am nga droit bëgg. dëgg la parce que ñun moomuñu. dëgg la waaye ku wéet. xamni ko xamanteni 2014 dafa ñëwoon vacances di jappalé deug la. 2014. 2014 dama ñëw vacances di jappalé may jappalé mané nit ñi voté leen Khalifa Sall. deug la. 2021 jot sept ans kessé lañ ci teg manam ñëpp nanguni manam man maa ngi xalaat après 2022 man xalaatuma élection yi ni jëm man maa ngi xalaat après élection yi nan lañuy ñuy liggéeyee Grand dëgg la euh, Alioune Badara Kébé dina toll foo xamante ni nii ku la defal lu baax boo ko waxul buy lim say noonu dina ci boole. lii ma ŋàdd nag bëgg koo wax dama ko bëgg wax askan yu bëgg koo wax Sénégal sa social gën naa ko doo ma laaj lu tax. da dangaa bitim réew ubbi fi lii nga xamante ni mooy centre de football ne samay camp camp yi nga xamante ni moom la waa centre bi di footballé soudure métallique bi nekk ci gox bi laa koy jox mu defar ko. koroog du ma ko fàtte mukk yaa ngi ànd ak Baba Babacar Sele maa ngi koy nuyu nga ñëw yëkkati xaalis bari jox ma pour ma defar camp yooyu kon sa social gëm naa ko waaye mbokk yi dafa am leneen loo xamante ni maajoor dama la ko bëgg a ñaabaasal dañu fay ànd ak gone goo xamante ni nii xale bi ba mu juddoo ba ne wee laa xam ne waykat lay doon ana la ngaan ana langaan waaye caa. may euh, ma tuuti. ci ma jaaga may ma jaaga may sa joor. na ñëw. yàlla musal. ci gu bon a bon. loo yéene sa morom nga doon lu baax. la ilaha musal. ci gu bon a bon. loo yéene sa morom nga doon. yéene gu bon a gaay. ay sama waa jaa yéene. waaw waaw. tama ji dëgg tama ji. Massamba Sarr dégg nga loolu Massamba Sarr am na ñu ma ci suuf na ma caama bii neex na ma trop waaye dafa am loo xamante ni nii pour askan war koo gën koo xame ñoo xam xale bii am na ci waay woo xam wooy na ko ci askan wi mu def bës ana ma jaaga bay sa joor yóbbu ma ma jaaga bay sa joor yow daal nit a lay reetaani bëggu la ah! bañ la mu weex weex ko lal jërëjëf loolu invité surprise la woon boo xamante ni nii dana ko boole ci waxtaan wi waaye mbokk ma fat lilini, ni me bu baax baa autour du Brada. Ni na la yemalunu ko rek ci homme politique yi déedéet léeg-léeg dinañ woote ñi nga xamante ni nii ñooy footballeurs yi dinañ woo handballeurs yi ay dinañ woo no yi dinañ woo ba woo voleurs yi ci tur bii nga autour du Brada. xam nga ndax lan ci lan bokk ndax maam gàtt na trop waaye ci jur gi la bokk uh-huh. dama ne duñ ci sepp kenn de dama ne képp koo xamante ne ni da ngay doomi gox bi nekk ci réew mi àddina la woo waxtaan ak yow waaye mbokk yi xam nga ne temps bi dana xoj wax dëgg yàlla liñ fi amoon ci temps xaabaabal naa tuuti waaye dañuy jox ki kàddu ki kii nga xamante ne nii mooy Alioune Badara Kebe mu waxtaan ak ay mbokkam ñaax leen préparé ñoom incha allah rabbi mu wax li mu noor Grand Yoff li mu bëgg li mu soxla. la la koy askan wi di xaare loolu lépp mu dënk ko ci biir autour des Barada jox ko askani wi Badara Kebe kaddu gaa ngoog. Thiamas kaddu gi may euh, gi may tëjee mooy deux mois moo si des ñaari weer. ñaari weer. ku nekk dina seet si nit ñi politiciens yi jóg nañu ñu ci kër yi. jóg nañu xam nga moom mooy loo xamante ni yàlla na ma yàlla baal dañoo ñàkk jox man du ma wax sax nit ñi votel leen ma xam nga lu tax parce que je pense que nit ñi xam nañ kenn ku ci nekk xam nga li gën ci yow ñu nu jiite mënuñu jouer ak suñu vie dafa jot nit ñi jël seeni responsabilité xam ni Grand Yoff du Badara Kebe moo ko moom du Thiamas moo ko moom du kenn moo ko moom ñun waa Grand Yoff ñoom moom Grand Yoff doomi Grand Yoff ñoo war a développer Grand Yoff nañu xool compétence nañu xool patriotisme ba bañ a bañ a xool intérêt personnel parce que defe naa ni bu doon intérêt personnel la kenn ku ci nekk tey jii yaa ngay demal sa bopp waaye tey dafa am lu ñu bokk loo xamante ni kenn mënu ko séparer muy Grand Yoff muy Grand Yoff dafa am lu ñu bokk loo xamante ni tey kenn mënu ko dagg muy Grand Yoff moo tax ñu tuddee seen bi lu la bokk loolu moo tax tey ñu war a ñun ñëpp takku suñuy carte mooy suñuy arme te arme boobu war nañ xool bu baax kan lañ koy jox ndax man de gëm naa ni nit koo xamante ni joxu la ndékki joxu añ bu ñëwee nii la dama lay jox reer bu yeboo nga dóor ko bool te xamante ni doo doo mës reer dafa jot ñun doom yi ñu teel suñu bopp Grand te defe naa ni wax dëgg yàlla Grand Yoff boo gisee manaan la maa ngi xalaat après mille deux man xam naa ne Grand Yoff ay doomi gor ñoo fi nekk. dëgg la xam naa ne Grand Yoff ay bañkat ñoo fi nekk. dëgg la ndax wax dëgg yàlla li ma gis tey nga gis ko yow bu bu bu leen doyul dara du leen doy. dëgg la ndaxte te ñu rafetal. ñu rafetal surtout. nañu rafetal. jikko yi parce que tey am na defin yoo xamante ni boo koy def rafetul. dëgg la parce que tey dërëm bi génnul gaal gi. dëgg la. dërëm bi mënul génn gaal gi. dëgg la man nag je suis sportif. sportif mooy ki nga xamante ni dafay nangu concurrence sampal sa ndënd ma samp sama ndënd que le dëgg la mais lépp doon ci fair play lépp doon ci rafet parce que tey doomu Grand Yoff yi waruñu leen jël di leen xeexee doomu Grand Yoff. dëgg la warul xeex doomu Grand Yoff. surtout doomu Grand Yoff warul gaañ doomu Grand Yoff. dëgg la. doomu Grand Yoff warul brutaliser doomu Grand Yoff. la parce que tey ñoom ñii di def politique bépp doomu Grand bu ñu fi jël élection jot ñu jox lay arme ñu la demal xeex demal xeex wala demal gaañ beneen doomu Grand Yoff bu ci bakkan rotee di nga ko rëccu rëccu boo xamante ne kooku dootul ñëw donc war nañu seetaat loolu bu baax a baax. dëgg la parce que lii élection locale la. Mhm. du élection présidentielle. Mhm. la. Mhm. te locale. gox bi mooy tànnal boppam donc li may dénk waa gox bi dikk ko dénk ndaw ñi mooy ñu góor góorlu xool fi ñu teg seen tànk xool ki gën ci ñoom dëgg mais nag mënuma bañ a gërëm waa ngéwal gi ngéwal gi faal xam nga lu tax lu tax dañ ñi ay géwal lañu waruñu far dëgg la te ñoom dañoo far dëgg la parce que ragal féete day xañ a wërsëg dëgg loolu bët du yenu mais xam na li bopp attan maa la ñamal loolu donc vraiment loolu dafa nekk loo xamante ni lu yàgg la du nekkul tey. dëgg la di ñaan yàlla mi nga xamante ne dara tëwu ko yàlla na yàlla motali seen yéene. dëgg la. te sunu borom dina ko def. dëgg la parce que yàlla moo bind àddunaam moo ñu wàcce. dëgg la man xalaatu woon heure bi dinaa toog fii di wax lii mais gëm-gëm ak yéene ak bëgg Grand Yoff rek la. man dama bëgg Grand ba man bi ma toog ak président de la république Macky Sall daf ma wax yow lan yow lan moo tax nga bëgg Grand Yoff ma ne ko moom laa am. ndeysaan fierté man su ma neexoon bokk parti politique gaay yi ku ma soxlawul parti bu ma dem ñu bil may bunt lu tax bokkuma fenn lu tax wóoruwuma fenn lu tax kenn joxuma kat-kat lu tax kenn daggaluma salaire lu tax awma xaalis ci état bi lu tax dewuma dugg APR lu tax dugguma fenn waa Grand Yoff ndeysaan parce que fii laa am lu tax tooguma Europe man samay doom Europe lañ juddoo bi ma demee sama yoon bu mujj bi mois dernier France sama taw mam Fatou elle a 14 ans bi ma tàggoo di ñibbi dama ko wo téléphone ni ko maam Fatou ma ngi ni di ñibbi mun tu n'es pas un bon père. Oh. Do papa bu baax mané ko ma tit mané ko mam Fatou loy wax ni mun papa yu baax dañuy dëkk ak seen doom yow tout le temps rek nga bàyyi ñu fi yow Sénégal Sénégal rek ma xamni xalé bi 14 ans la mi ngi mag bu sañon tay day yeewu ak papam waye papam am na mission sama xel dafa dem si Serigne Touba. xale bi dafa wax ak man rek sama xel dem si Serigne Touba. maanaam les dix huit ans d' exil. sama xel day dem ci kilifa yooyu man loolu moo may réconforté sama xel day dem ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi gàddaay jóge Màkka dem Médine mhm. dafa am loo xamante ni mission divine la yàlla dong la koy ñaax euh, États-Unis la jóge semaine passée bi ma ñëwee li ma njëkk def mooy dem cimetière Saint-Lazare léegi tey maa ngi ñu ngi may woon ay vidéo politiciens yëpp ñu ngi cimetière yi waa daaw ñoom fan lañ nekkoon daawati jéeg xanaa cimetière amul woon bu nu foogee ni ñoom ñi ngi nax seen bopp non ñi wala ñi ngi nax yàlla seen bopp la ñuy nax parce que yàlla gëmul nelawul mhm. daaw on a nettoyé les cimetières de Yoff vingt six hectares mhm. dërëmu état de mussi vingt six hectares on l'a nettoyé pendant deux mois te yoof Sénégal yëpp fa am mbokk te musuma fa gis benn benn musuma fa gis benn politicien or boo xamante ni dëkkul Grand lan moo tax ñoom ñoom ñi dëkk Yoff maire Yoff du ñëw lan moo tax maire parcelle du ñëw tay maa koy waaj a nettoyé ni inshallah ak ak équipe bi le 6 le 6 novembre billahi ñom ñep daan ñew pourquoi parce que élection lañ dégmal mais bo yaakar ne ni da ngay nax yalla sa bop ngay nax donc man lool lay tëjee di wax nit ñi nañu am gëm gëm nañu xamni du politicien mo ñuy défaral fi ñun ñoy défar suñu réew ñun ñoy défar suñu gox parce que jeunesse bi suñu gannaaw il faut ñu jox leen espoir suma ma Europe tay après ma carrière dëkk Europe tok fa fondé famille nekk sama njaboot bu boobaa compétence bi ma yàlla may kan moo si jëriñoo ñoom déedéet man sénégalais laa africain laa bu ma retraité damay ñibbi si sama réew ànd ak sama waa réew xool nan laa développé réew mi. loolu laa am may tëjee jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf man xam naa ne xel yu yu bari tooy nanu wax ji li muy bari bari bari bari leen rek moo ma ci ñor doo ma laaj lan la maa joor wax ma li la ci xaw a yëngal. len rek moo ci dawlal sama yaram. muy lanati. doomi Grand Yoff. waroo gaañ doomi Grand Yoff. loolu foor na. xam nga ndax lan. ah ñoo juddandoo ñoo yarandoo ñoo màggandoo. te Grand Yoff ñëpp xamante. kon ngalawaay bu nu kenn boole. ngalawaay bu nu kenn jaxase. ngalawaay nu nuy bëggante te yàlla rek tax. ngalawaay bu nu yàqante. ndax fii ko fi xas rek sa bopp nga xas mhm. dama ni koo fi xas sa bopp nga xas Badara yëkkati nga kàddu goo xamante ni nii nee naa la Grand Yoff yi fi nekk yëpp wax dëgg yàlla danoo sedd seen xol waaye leen rek laa bëgg ñu tëjee ko mooy équipe bi nga xamante ni nii ñoo nekk au niveau de Grand Yoff di wax di wàllu bokk di ay ñoo xamante ni nii ku ci nekk fa nga nekk maa la fa jëli indi la ñëpp ñuy di def émission bi di am ay liggéey yoo xamante ni dama koy liggéey ngéwél liggéey faal bi xale yi nga xamante ni ñoo fi taxaw léegi-léegi bu ma leen gisee sama yaram day daw ndax sama bopp laa gis mu ñoom mbaaxan jibi karara ñoom seek ba ci petit coppet mii nga xamante ni bu ne der dana lu ma yëg mba xale bi nga xamante ni moo ma jaaga may sa joor lay langaan bu ma ko déggee sama xal day dal waaye jams mention spéciale Ousmane Nourou ni maa ngi lay bëggee eh, ajuma moo yor caméra bi nga xamante ni nii muy football latéral laa ilaaha illallaah xale baa ngi noonu waaye nag kii nga xamante ni mu toog ingénieur bu mag baa ngi nii toog xale bii nga xamante ne nii grand yëf fii la dëkk pour ma am ko dama koo lijjanti ba son Pape du yàlla na yàlla sagal waaye maam am ñeneen ñoo xamante ne nekk ci ginnaaw maa ngi ci gis sama xarit boo xamante ne man maa ko bëgg sama bopp maam Cheikh I love you billahi I love you léegi nag Fallou danoo bëgg nga nga tëjee émission bi àbbute di ñaan yàlla yàlla na yàlla defal jàmm defal ni sutura defal ni dund gànd ak bakkan waaye bu leen fàtte ni imaam ci équipe bi la bokk actuellement dafa am lu mu major lii nga dégg kàddu gi ñu yëg ko fii lépp la def mais ca Badara Kebe dafa dawal suma yaram eh. sama yaram dafa yëngatu dégg loolu ndax xam nga lu tax dafa wax ak askanu Grand Yoff dëgg la askanu Grand Yoff mënoo ko wax génn ci politiciens yi mhm. ndax yàgg nañu dégg naan en bu ñu jëmee campagne ñu ngi jël ay nervi mhm. ñu ngi jël lu ne te ñu nekk doomi Grand Yoff dëgg la di dóorante di gaañante mhm. gaañuñu kenn suñu bopp lañu ñu gaañ bilaay mu attu leen ca loolu muy jikko ju rafet muy jikko ju baax jikko ju nag Thiat dama ko tam de wax fuñu dajama ak mom mhm. ben mbir social la. Mhm. en 2014. Mhm. suma ma benn jarul may tuddu turam. mom xamna man xamna yalla xamna jabaram nekon, ci tolof tolof ñu war ko opérer. mom mi sama xel ci yalla mom la ko jubal. ma dem à cité millionnaire lañ daje. boobu mi ngi ci digg campagne ah comme ni mu ko waxee ma ñëw wax ko soxla boobu mu ne ma nañu ànd sama oto ñu dem otoom mu débloqué xaalis bu baree bari jox ñu ko ñu daal di continuer dem hôpital principal dem opéré ji soxna soos xam nga loolu ba àdduna di tukki duñ ko mën a fàtte mukk ci kaw suuf dëgg la muy nit ku baax dëgg la li mu bëgg moo ko xam waaye yow it eh, nga def liggéey bu am solo. Mhm. ndax fi mu ne nii dama ne Grand Yoff ci jëmmi boppam ku ko xamuloon xam nga ko. Mhm. à travers émission bi li ñu bokk TV. Mhm. li ñu bokk TV. déggal loolu. ndax képp kuy ndaanaan képp kuy homme politique toog nga fii nga wax ak moom. te it nag waxoo sa bëgg-bëgg bëgg-bëgg askanu Grand Yoff ngay wax. li lay moom a ñor. ak sa équipe bii nga àndal macha allah. Mhm. ñuy liggéey liggéey bu am am am solo. Mhm. ñaan yàlla rek yàlla na yàlla gën a taxawu liggéey bi yàlla na ci yàlla gën di dugal loxoom ci sa ak sa barke sëriñ bi suñu barke sëriñ sëriñ Babacar Sy. radiyallahu taala anhu jërëjëf jërëjëf mbokk yi kooku ngeen dégg ndeysaan mooy sunu mbokk du sunu xarit di communicateur traditionnel nekk fii ci rajo bu baax boobu nga xamante ni mooy rajo Afia. waaye tey nag dafa defal Alioune Badara Kebe invité surprise waaye mbokk yi dama leen jox di daje ci yeneen i fanam ci yeneen i fiem ci beneen koo xamante ni nii dañ koy war a invité ci autour du baraada waaye mbokk yi duñu wax ba jóg wax ba jóg ah nag duñu delluwaat ci petit coppet ña ko nag yëngalaatal réew mi Badara yow yow yow yow ñun ñëpp nee nañu yow jërëjëf wax leen loolu bila yow yow yow yow di jaxal sa ci di jaxal sa ci jërëjëf jërëjëf xale bi woy na loo xamante ni nii ba ma ko déggee sama yaram dafa ndaw toj sa mbaare mu na yaakaaroon naa ne fi leen la am amul fii waaye xale bi indiwaat na ko jërëjëf Badara maa ngi lay jaajëfal di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal ndam defal la sutura defal la gudd gànna teeyu bakkan yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def